ci bàkk réew mi ak ñaan yi nga xam ne ni ay kilifa diine def nañ ko la waxtaan yu ñu sëkk ci dialogue national bi door. ñu ngi ñaan borom bi ngir mu indi ñu jàmm defal ñu jàmm def jàmm ci suñu réew indi démocratie suñu réew ak tamit ñu mën a jox cër lépp loo xamante ne nii ñoom ñooy suñuy institution. mu di waxtaan yi nga xam ne ni bi muy door ñaari position jot nañ ko ci ràññee ñenn ñi bëgg ñu yeggali processus électoral bi. su aajo woon si ñun rek euh, yaakaar naa ni duñu dooraat li nga xamante ni moom mooy processus bi. li ma jàpp mooy te mu am solo ñi nga xam ne jot nañoo jàll dañoo war a wéyal processus bi. ci seen i wet ñeneen bëgg. ñu tëggaat processus bi yëpp li ko dalee parrainage ba ba bésu scrutin bi. ñu ubbiwaat li nga xam mooy processus électoral bi mooy li may woote mooy ak waa Jokalante processus bi élection yi dañu ko war a tëgg nu mu gën a gaawee comme ni ko waxee mais processus gannaaw bi nga xam ne ni waxtaan nañ ba pare ci teewaayu Amadou Ba Boun Dionne ak yeneen i candidats yu ñuy woowee candidat spoliés tëral nañu ñaari commission yu war a liggéey bi ngir bañ ca noppee ñu xaatim ak conclusion bi nga xam ne ni mooy tax ba ñu jàpp bés ak format bi nga xam ne ni moom lañuy amal jongante falum jiitu réew bu atum 2024 ci jotaayu xibaar gi dañuy taxaw tem ci diggante ñu ci réew ak Idrissa Seck gi